Uh. halaan bikum am na ku am korona Sénégal ñu faj ko ba mu wér mu génn dem ñibbi këram mujj amaat korona allah le quotidien yéene kaay ñu ko xamal ca diiwaanu Ziguinchor la amee yéene kaay bi ne jàngoro ji kon garaaw na ndeke de fa ñoo fooga na kum dal soo wéree rek jeex na li jeex agut Sénégal mooy cas communautaire yi ci korona bi turbine yéene kaay ne benn waay daal moo def accident ñu yóbbu ko hôpital principal am benn mbokkam bu ko dégg jógee ko kër ma Sarr ñëw seeti ko ca hôpital ba ndekete waaja fa am korona te xamuñ ko mu wàllu ko ka accidenté ba pare wàllu ko ña ko doon faj ay yow wax nga hay lu ëpp juróom fukki docteur ak njabootu waa ji fañ leen a ber te mooy yéen ñi ko xamal réew mi yéen kaay ne korona bi fa ñoo rawee lu bëri doonte docteur raawut français ba ma ngay njortu ne fileeg benn weer korona dana jeex ci àdduna bi la jeexagut Tuubaa Mbàkke mooy wàllaate gu garaaw gu gaaw gu bëri nga fa korona di def jamono ji ba tax source ay yéen kaay ne Tuubaa moom buñ ci waxut fa mu jëm sax Lambaay nar na faa ñaaw. ah yow seet. tal pharmacienne ba doon liggéey mattabul fawsay mi te amoon corona léegi wàllaat na ko ñeneen ñu mu doon bokk ak liggéey ñu ne déete waay fa fajee ñi xamee corona centre daaru marnaan ba fi mu toll ni fa fees dell lal yépp ñu amee korona ñoo ci tëdd meeru Touba jël na dogal moom tëj domaine ba ak fa ñuy utee kayitu juddu diiwaanu Louga moom la fa xam du jàmm ci corona bi su du ko quotidien ne démbu fanweeru doomu aadama yu bees xam nañu corona Sénégal am na ci ñeenti cas communautaire yoo xam ne Touba la ay jëwriñ ji di Abdoulaye Diouf Sarr ne bu fekkee daal sénégalais bu nekk soo xëyee di génn koo daje nga jàppee ko ne kii boo moytuut am na korona nga jël say matuwaay yàlla mën na cee musal buñ ko deful rek lambaay ñaaw de l'évidence yéene mel ni ku naan ko lambaay kay presque ñaaw na ba noppi ah korona bi mi ngi rey mi ngi wàlle tasaaroo na ci xanam gu jéggi dayo l'observateur ne paa bi mu rey ca diiwaanu Louga jibi saw xam nga la moo tax mu rey ko moom fa amee korona biñ ko laajee commerçant bi dugal jàngoro ji fii Louga ba ma ko géjee gis kenn kañ la ñu ne ko ah kon yow yoroo korona ndekete gisee naa commerçant ba wàllu ko feebar bi sonal ko biñ ko yóbbu hôpital fekk boobu weesu na ñeen fukki doomu aadama nag ci njabootam ak benn imam fañ leen a ber ngir xool seen wér gi yaram laneen lu ñu war a xoolaat nag Sénégal mooy masque yu bëri yu xusmaa ñàpp yi ci dëkk bi ñu di ko jaay a yaaw seetal am na masque yoo xam ne baaxut nañ ko defaree tisi bañ ko defaree gars yi dañuy jël tayër rek koc koc rek lonko naan acca masque ayo masque boo mooy tuut jox sax jàngoro waaye mënu laa aar ci corona benn waay moo ko wax ci turbine yéen a kaay yéen a kaay bi na Sénégal nag lu jege ñeenti junney doomu aadama ñi ngi leen ber ci corona bi xool seen wér gi yaram nay leer laneen ca naan ñi yi seen kër yi mere nañu état bi de nee na bi wàññil ñi nga xam ne ñoo luyee léegi ñu luyee seen kër yi sóoraale wuñu leen fañ leen a war a mën a mosal dara seen kàddu a kaay yéen a kaay bi direct news ne lu ëpp juróom fukki moodu moodu faatu nañ bitim réew ci corona bi aay yéen kaay bi ne ba pare nag nguur gi ne buñ leen andi Sénégal suulee leen fi nañ leen bàyyi tubaab yi ñu lakkale nag def leen lu kenn xamut loolu nag lu ñaaw la te métti na moodu moodu yi ba ñu ngi koy ñaxtu yéen a kaay bi nag ne dafa mel ni ñun nag fayuñ naar bi xoromam ndax moodu moodu yi gàcce ngaalaama yàgg nañoo faj gu mu gàcc gàcce ngénte tabaski ceeb ordonnance dépense yàgg nañ ko taxawoo sénégalais yi ku am soxla woo leen at bu nekk junney milliards moom lañ doon dugal ci réew mi kon tey daani doole uti teraanga teral seen njaboot tax ñu faatu fa ci corona bi ñu ñëpp leen war a delloo njukkal les éco yéen kaay di ñu xamal ne ginnaaw tooxi doon a tappale bi ñu wax ne moo am ci marché suukar ak diwlin bi ci corona bi te ñu wax ne Idi Thiam njiital UNACOIS cinquante pour cent ci marché suukar bi moo ko gañe neuf milliards dëgg la naam Idi Thiam xam nañ ko bu baax ci wàllu jënd suukar dugal ko fi waaye diwlin moom musu cee dugg tey nag yéen a kaay bi ne ginnaaw Idi Thiam am na beneen këru liggéey kaay bu gañ a marché moom it suukar un milliard te moom it tamit kenn mësu koo xam ci jënd suukar nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja moo ne njiit réew Macky Sall tabb na ñi nga xam ne ñoo war a bokk ca comité bi saytu xaalisu corona bi te général François Ndiaye jiite ko Yacine Fall nag ca ñan tànnoon mu bokk ca waaye trente minutes laata ñuy génne liste ba ci la na man bàyyi na man comité bi faa foogoon ne fa ñuy jël ay dogal xaalis bi fi muy dugg ak mu du waaye ndekete yoo comité de la maanaam ñun daal sikkim lañ ñi doon rek gaston ñu yóbbu duñ dogal xamu dara xoolaan rek a na ba club ci tànn gi mu tànnoon Van Dijk ci Ballon d'Or 2019 ne moo ko yelloo ba tax taskatu xibaaru Angleterre ya ne loolu nag bokk na ci li mën a tax Sadio Mané dem Real ma dem ci stade yéen kaay fekk fa Papis Demba Cissé jaar-jaaram ci équipe nationale jaar-jaaru Alioune Sarr ci làmb ñaar fukki at ak juróom benn la waaye tey Matar Ba jëwriñ ji mel na ne war na ginnaaw bàyyi na Alioune Sarr maanaam noppi na ngir jëlee ci CNG bi am na ñeent ñu ñu wax ak pour ñu remplacer ko bokk na ca ab arbitre ñi daan bëree nag bàyyi bëree kenn ci ñoom du ko remplacer bokk na ca Yaxya Joob Yékini nee na man bàyyi naa CNG bi Alioune Sarr dañoo war a dem Bombardier nag nee na ci lay à la traité muy leer turbine yéen kaay di ñu xamal ne ci jamonoy koor gi buñ ndogoo ba pare télévision yi fa ñuy def ay théâtre ci ndogu li waaye ren nag sénéra ma leen di dànkaafu seen théâtre yooyu ñu yu ñàkk fayda ndax jamono ji corona bi du lu ñuy foye réew mi yéen kaay di ñu xamal mbir mu garaaw xam moo faatu ñu denc ko suul ko bët set ñu dem fekk ñu sulli ko yóbbu ko bàyyi fa rek malaanu perkaal ba allah yëf yaa nga amee ca camp de garde loolu moom yéeme na ba tey réew mi yéene kaay na ma wax leen lu yéeme benn sàmmkat daal moo rey benn waay ba mu dee ndax fiiraange ci jabaram ginnaaw bu mu ko reyee nag ci la mujj leer ne lam njortoon amut ci erreur la reyee waa ji ndekete waa ji siqut ak dara jabaram waa ma ne waaw moom ngeen rey ko rek mu jeex su ngeen ko reyee du erreur de ndax faat bakkan la lislaam dégg digle xam nga am na yenn góor ñi waxuma la fiir ba dof waaye fa ñoo feebar ay bàyyi ma sax moo leen tane doo xaar ba am lu la leer te soo ko amee sax bu ko rey fasel sa jabar ndax mooy ki la yàpp bay séq waa